chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur, permettez-moi, avant de revenir sur vous, de passer mes salutations à votre directeur de cabinet, mais surtout à un ami qui était chez vous, Mamadou Aïsendiaï, un ami de plus de vingt ans. Monsieur le ministre, votre parcours laisse en vous un homme de qualité, brillant avocat, impressionnant fonctionnaire international que de ministère de souveraineté. Votre confiance venant du président n'est pas hypothétique, mais catégorique. Dougoutigui, bon vent pour la suite. Vous êtes une fierté pour nous autres jeunes en phase de formation pour assumer notre posture d'homme d'État. Votre parcours nous fascine et nous façonne. Pardonnez à ceux-là qui ne se voient que dans l'exhibition intellectuelle, qui ne se voit que dans l'insolence ou l'arrogance. L'élégance est une qualité, une denrée rare. Parlant de denrée, la plus rare du moment présentement reste la sécurité au Sénégal. Merci pour cette deuxième phase de placement des vidéosurveillances au niveau de nos, de nos, de nos villes de campagne. Merci encore une fois pour cette hausse, Michel le ministre du Budget et des Finances, de milliards pour la sécurité publique, qui est devenue une affaire importante. Pensez aussi à Bignona, à son commissariat, qui est stratégique, zone qui pourrait aider à créer de l'accalmie. Mais encore une fois, merci surtout pour ce qui est prévu au niveau des, des commissariats. Ici à Dakar Plateau, nous ne souffrons pas de sécurité. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer nos, nos, nos, commissaires, aussi bien du plateau que de Rebos, qui participent avec nous dans les discussions. Je voulais juste dire, lors des déguerpissements au niveau de marché Sandaga, Il y a des commerçants à qui on a pris leur argent, paraît-il, au niveau des commissariats, qui jusque-là n'ont pas encore restitué. Si vous pouvez faire un geste par rapport à cela, ce serait une excellente chose, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je voudrais aussi inviter à réfléchir davantage sur ce concept quartier sûr. Comment impliquer ces jeunes des Nawetan-là, qui connaissent le petit vendeur de chanvre qui connaissent les jeunes qui agressent dans le quartier Comment créer une certaine adéquation entre l'autorité au plan local et ces jeunes dans le quartier qui peuvent identifier à temps sûr toutes ces personnes-là. Monsieur le ministre, je voudrais, pour terminer, dire à ceux-là qui n'ont que dans leur bouche des insultes, des calomnies, de changer de cap. Les Sénégalais sont assez édifiés. Ils nous avaient proposé de la rupture, ils nous ont servi de la pourriture. Les Sénégalais ont décidé aujourd'hui de changer de cap et d'aller avec ceux-là qui travaillent ce pays-là. dans le comportement, ça se de la violence, on pense à l'ironie pour parler comme BBC, c'est parce que simplement il manque encore d'arguments. yéen Sénégalais yi ñuy seetaan te nekk ndaw bëgg doon ëllëg bu leen kenn dugal ci saaga xaste bu leen bu ngeen bëggee doon kilifa ëllëg ñi doon kilifa jox leen seen cër donte faruleen nag ñoom ndax dama ko waxoon fii barki démb ne ku bëgg ñu wekk la da ngay wege ku bëgg ñu do nangu la sa kilifteef da ngay nangu joxe kilifteef ñii saaga xëy xaste dama jàpp ni nit ki lim am rek lay anti amuñu leneen lu ñu proposé lu dul saaga xaste jéggal leen parce que en réalité li leen métti du ñun ñoom la ku doon woote xeex ku doon woote xuloo bu dem ne xeexatul ay na yéwén yéen itam nangul leen ni ils posé les armes te woote wuñ loolu du leen jàmm que la paix et loolu leen di woo pour le Sénégal mu nekk na un débat d'idées ñu waxtaan ci réew mi waxtaan ci li koy jël waxtaan ci xam-xam te xam-xam dafa seexlu saaga dafa seexlu xaste nañ jongante ci dooley xel te bañ a jongante ci dooley saaga asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu